الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله القائل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk yi ginnaaw bi di sant yàlla subhanahu wa taala moom mi aji wax li ñi nga xamante ni moom mi ngi giñ ci moom borom subhanahu wa taala ni moom mi yabal muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu ko dàkkantale ko mooy as-sidq yani alladi jaa bis-sidq di taggeet ñi nga xamante ni dëggal nañ ko moom alayhi salaatu wa salaam ci dëgg gi mu indi muy jubug yàlla bi yàlla mooy ulaika humul muttaquun ñooñu mooy ñi nga xamante ñooy ñu ragal yàlla ñu ngi koy sant moom yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaan mu jéggal ñu suñu bakkaar ñuy seede ni amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom te waruñu ko bokkaale ak kenn di seede suñu sama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la dawam la tànnee fam la yal nañu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubam ki léeg guddi yéeg bëccëg yi ngi awante mbokk yi ñu dénkaat suñu bopp di leen dénk ragal yàlla subhanahu wa taala li ñu dénk ni nañ ko ragal tey wax wax ju rafet wax ju jub wax ju baax wax ju defar ndax mooy tax yàlla yëwanal suñu mbir ba pare jéggal suñu bàkkaar képp koo xamante ne topp na yàlla topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mooy kooku mooy ñooñu ñi nga xamante ni mooy way texe ñi yàlla nañ ko yàlla boole mbokk yi suñu xëbb bi weesu ñu ngi ko amaloon ci lii di as sidq muy dëgg ak ay jeexitalam ci kenn ku nekk ak ci société bi it jiituñu taarifoon lan mooy as sidq lan mooy dëggu muy li nit ki reporté di wax te ba nga koy wax soppi woo ca dara na mu nekkee loolu nga ko waxee loolu mooy ak siddiqu mu doon lu rafle it suñu jamono lool ba tax mu jur lii di coowooy pexe yi ak wor yi yépp ci biir société bi fees bi dell loolu di ak sëddëku ñu waxoon gënee li ci amoon bokk ci arab yi ñu waxoon ni moom moo ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko ay laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko li nga xamante ni mooy li yàlla farataal ci yow ci julli yi ci koor yi ci zakaat yi yii la mu xamal ko ni ko nag leneen loo ci dolli rek loolu coobare wu la mu ne ko bind naa ci ni li yàlla farataal ci man du ma ci yokk du ma ci wàññi waaye dinaa ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee ni dëgg gën na lii mu wax kooku de dina texe dina dugg bi aljanna ñu ñëwoon ba tey waxoon ci ni ak sidq lii di dëgg dëggu dafay jëme nit ki ci mbaax te baax dafay jëme nit ki ci biir aljanna yonent bi sallallahu alayhi wasallam dénk ko ñu ni juróom benn yi de képp koo xamante ne sàmmoon nga ak moom moom alayhi salatu wasalam de mën na laa garanti ni lii di aljanna lan ci jiitu wax mooy nañuy dëggu ci suñuy kàddu te di wa ufu ida ahadtum saay bu fekkente ni dëlante ngeen lu ngeen dëlante ngeen fexe respecté ci la ngeen wax te it ngeen di delloo ndénkaane ci bañ la ko dénkee nga delloo ko comme nañ la ko dénkee woon mu waxoon ba tey nii na ngeen di sàmm lii di seeni awra ci bañ a mooy yàlla waaye na ngeen wàccee seen ak gis ci bañ a xool lenn loo xamante ni lu xaram la da ngeen di tegu ci seeni loxo ba lépp lu ngeen di jël lu ngeen di fàggalit mu nekk loo xamante ni lu xalaal la lu dagal la ba tey ñu waxoon ni ak siddiq yóbbu gi muy yóbbee nit aljanna bokk na ci leneen lu muy jural doomu aadama mooy yugniika am ma faataka min addunia da lay del da lay doyloo ci la nga xamante ni mooy la weesu te yonent bi salaa sallam wax ni ñeenti yi képp koo xamante ni de am nga ko jàppal ne dara rawu la ci àdduna li ci njëkkoon mooy xifzul lisaan wattu ci sa làmmiñ bi wa sidqul xadis te booy wax mu nekk wax bu dëgg wa xusnul xaliqa nga rafet jikko wa ifatu fi taam te nga tegu tamit ci ñëm ñu waxoon ba tey ci li nga xamante ni lii di dëgg am na ko ci ay ngëneel mooy dafay barkeel nit ki li mu am ci alal ci képp koo xamante daa ngi jëflante fu ma doon yow mi jëflante ak moom yow mi nga xamante ni yaa woor ak ki la wuus kenn ku ci nekk bu amalee dëgg doxalee dëgg yàlla dina def barke ci seen alal ci seen jëngat ñu waxoon ba tey ci ak sëdd ko ni dafay teg di njàqare ci doomu aadama bi ñu joxoon ci misaal yi nga xamante ni duggal ci xuntu ba leneen ko muccal keroog mooy jëf bi ñu doon jëf te yàlla tax waaye mu àndoon nag dëggu te nañ ko doon defee ba tey ñu waxoon ni lii di ak sédd ko dëggu ngënee la bokk na ci mooy ni ki nga xam ne dafa dëgg kooku yàlla da koy bëgg ñu waxoon ni lii di dëggu dafa am ay façon ay xeetu dëgg bi ci njëkk moo doon sidqul mu'taqid mooy nit ki dëgg ci digganteem ak borom subhanahu wa taala ba lépp looy def sa digganteeg yàlla mu doon bu dëgg nekk yàlla y kese ñaareel ba ci anwaaru sidq mooy sidqul aqwaal mooy lépp looy wax mu doon loo xamante ni dëggu la ñetteel ba moo nekkoon sidqul amal jëflante di ngay jëflante ak nit ñi dëggu lal ko naka noonu lañu weyoon ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de ñi àndoon ak moom yàlla bi leen di tagg daf ni lil fuqaraa al muhajirin alladina uxriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika hum alsadiqun yàlla di ci tagg ñi nga xamante ni ñooy ñi gàddaayoon jóge Makka ñëw madinatul munawwar rawale woon seen pas-pas jaayante woon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak boroomam ñooñu la yàlla mu ni lim leen di mele mooy ñooñu ñi nga xamante ni ñooñu dëggul abdullah ibn salaam ñu nettali mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de bi mu ñëwee bi madina mu xool ko nee na la mu xool ci xar kanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba seetlu ko ba gis ko mooy ni wallahi kii de boo xoolee xar kanam gi sax nga xam ni kii wax ko dëgg la bu ñu ñëwee na rafuumal alayhi salatu wasalam ci buur yi ku mel ni malikul xabasha di ko tuumaal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lam indi nii da koy da leen di dëddale seen seen jaam yi ba tax na dëggatuñ leen sos fa ay sos yu bari moom lam leen tontu mooy ndax moom daana sosal kenn ci ñi nga xamante ni mooy ñun dëggal ñu ne ko déedéet Abu Sufyaan ne ko soo ko musul sosal kenn lépp lu mu mus a wax wala mus a jëflante nit ci dëgg la mu ne kooku nga xamante ne nag li muy jëflanteeg nit ñii lu dëgg la ndax kooku ne na sosal boroomam subhanahu wa taala noonu la ko tontu bu ko defee fi ñuy dugg tey ci suñu xutba mooy dëgg bi ñu wax nii ak ngëneel liñ ci wax ak yéen jeexital la war a jur ci kenn ku si nekk ak ci société atarafidu ala al fard wal mujtamaa dafa bokk ci aathaar yi nashru waqaidi l wuud mooy dëgg bu nekkee ci nit ki dafay tax ba lii di cofeel dafay am ci suñu diggante ak it confiance ndax lépp looy jëflante nit ki rek ci dëgg kooku dina la ëmbal cofeel ëmbal la mbëggeel naka noonu it te lépp lu ngay di dox rek ci kaw confiance lay tegee te lii nga xamante ni mooy ñaareel bi al istiqa bil xayaati zawjiya muy liy fonde société bi société di tàmbalee mu ci famille bu ñuy fas diggante li ñuy wax ci góor gi lépp ci lu baax ci ay seede di ko wax ci jigéen ci ay seede ci lu baax loolu bu ñëwee ba ci biir néegu sëy bi li ko lal lépp di dëgg ku góor ki di ko gis ci ku jigéen ki ku jigéen ki di ko gis ci ku góor ki loolu dafay jur confiance bu jur lépp loo xamante ni ak war la day dàqu ci seen seen diggante bu ko defee lii di famille bu sosoo ci dëgg bu génnee ci biir société bi kër bu nekk génnee dëgg googu ak cofeel googu mën naa jur law ci àdduna bi nga xamante ni mën nañu espérer ne ah dëgg sàngam de kooku ñooñu dëgg bu rek la ñuy def wala ci dëgg bu rek la ñuy wax waaye ma ngay tàmbalee ci fa nga xamante ni foofu la société bi tàmbalee mu ci biir famille bi dëkku mbokk yi ba tey jeexital yi ñuy def ci nit ki war ci société bi mooy iktisaabu ixtiraami wa fiqati nnaas dafay jur kenn ku nekk di respecté sa moroom ndax ki ngay jëflanteel ci dëgg kooku la mu lay def mooy dalay wex ndax la nga ko waxoon def nga ko la nga ko diggoon def nga ko la mu jur ko mooy ay ixtiraam mooy ak cofeel jur tamit li nga xam ne mooy respecté seen diggante ku nekk fonk sa moroom dëgg gi nekk ci nit ki li muy yóbbee ñi nga xamante ni ñooy jëflante ak yow bu dee koy jaay nga dañ naan demal ci diw ndax moom moom lu mu la wax ci njaayee ba dëgg la kon gis ngeen dëgg li muy xëccee nit ñi di ko jëmale ci nga xamante ni dafa yëngatu ci wàllu woowu kenn ku ci nekk nag wàllu ba nga yëgal boo ci doxal dëgg nit ñi dañuy riir ku ci ji la ndax dëgg bi nekk ci yow ñeenteel bi nga xamante ni li ñuy dëggu da koy jur ci kenn ku ci nekk mooy raaxatu nafsiya li ñuy wax paix intérieure dëgg bu nekk ci yow olof sax da koy léeb mu ni boo defee lu baax waxoo lu baax waxee wax wax lu baax boo tëddee nelaw koo xamante ni ci jub rek lay def di ci wax kooku doo ragal a jaar ci benn yoon war nga jàkkaarloog kenn di ragal wax ak moom ndax la ngay wax lépp dëgg mooy li ko lal bokk dëggu nag bu fekkente ni dafa dàq ci ab société yooyu ban jeexantal lay am ci société bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni bu dëggu dàqoo ba ñu nit ñi xàmmee suñu lii dëgg ak lu dëgg xam leen ne yéen a ngi nekk ci axiru zaman ci mujjantal bu zaman moom alayhi salaatu wasalaam mu nettali ko ci xadis mu ni ci xadis abi hurayra radiallahu anhu mu ne sa yati ala nnaasi sanawaatu qudaat dina ñëw ci jamono mu ni nit ñi warkat yi ñoo ciy ëpp alaama ya signe yi mooy yu saddiqu fii halkaadi da nga xamante ne du wax dëgg nit ñi dañ koy dëggal donte majorité bi yépp xam nañ ni kii am dëgg waaye nit ñi dañ koy dëggal ba dëggal googu da ba ci ba ci ba ci li muy wax te nekkul dëgg day mujj ñu saxal ko wa yukadibu fiha saadiq ki nga xamante ni day wax dëgg nag moom dañuy xool ci la mu sol rek wala na mu mel wala ci ban ban social la nekk pour ñu mën koo juger ndax mën nañoo dëggal ay kàddoom wala ñu ko dëggal mu ni wa yutimun fiha alxain ñuy wóolu lool ki nga xamante ni kooku workat la kooku la ñuy wóolu wa yuxawinu fiha al amin ñuy tuumaan ak di suufeet koo xamante ni moom wax ko dëgg la koo xam ne ku wóor la la cay gën a yéeme nag mooy wa yuntaxu fiiha rubay bi da nee na dañuy bàyyi ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax arbooy bi da mooy ñu insignifiant yi ñoom ñooy àddu ñooy ñuy wax bi yonent saa salaam waxee di saxaay bi ne ko wamar ruway bi da yow alayhi salatu salaam ñoo ñi nga xamante ni ñoom nga leen di tuddee ñu insignifiant ñu tekkiwul dara ñu ñan lañ قال الرجل التافه يتكلم في امر العامه mu ni mooy ñi nga xamante ni tekkuñ dara te ñu leen di bàyyi ñuy wax nag ñooy nekk ci rajo yi nekk ci plateau télé yi nekk fu ne di wax te ñoom tekkuñ dara te bu ñuy wax bu ñuy wax seen propre wax waaye dañuy yóbbaale waxu askan bi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yii su ngeen ko gisee ci jamono xam ne ne yéen a ngi nekk ci aaxiru zaman أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين bokki ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala julli di sëlman ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam suñu taxawaay ñaareel ñu ngi koy jëmale ci penc bi ci tolluwaayam yonent bi borom bi subhanahu wa taala dénk ñu ci alquran yi fattaqullah na ngeen ragal yàlla wa aslihu zaata baynikum na ngeen ragal yàlla moom la jiital ci li mu wax ba pare mu dénk ñu ni na ngeen di rafetal seenu nekkin mbokk yi Sénégal gaal gi mu ngi toll ci digg océan bi te kenn ku ci nekk am ci masuliya responsabilité bu mag ngir gaal gi bañ a tiig ba tax na ci tolluwaay bi kenn ku ci nekk yaa ngi wax ci la kiy wax ak la fele wax waaye kenn ku nekk rek na fexe ba la muy wax na doon lu dëgg doon luy defar te nangu nag li yàlla dogal yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy dégg bu muy dénk Abdullah ibn Abbas daf ko wax ni ko te wax yu mujj xamal ni yow gone si ni bu ñëpp dëppoo woon ngir bëggal la dara te àndul ak ndogalu yàlla loolu du mës a sotti waaye bu ñëpp àndoo nit ngir xañ la dara te mu ànd ak dogalu yàlla loolu dara du ko teree am ndax mu ne xalima go doon bind bind na ba pare te fa mu ko doon bind daaga far na mooy ni benn président lañ am bu jiite gaal bi mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye kenn ku nekk nag yan bi ko yàlla yan muy responsable boo xam ne yàlla da koy laaj am kenn ku ci nekk am nga ab yan ak sas ci yan bi nga fexe nag ba yii boo ci demee yow yan bi dina oyof ci yow oyof ci pénc mi nga nekk muy sa tâche oyof ci biir société bi law ko oyof ci moom président de la république ak ku mën a àndal ci liggéey bi nag ndax lii nga xamante ni moom la ñu xutba muy ab sidq su kenn ku ci nekk amee sidqul mu'taqad muy al ixlaas ci digganteem ak boroomam la muy doxale boroom yëpp sell dëggulal ko te yàlla seede ko loolu day jur yow sax jëflante gi ngay jëflante ak nit ñi ci ay amlante ak jafelante lépp ci dëggu lay nekk say kaddu ak nit ñi ci dëggu lay lam loolu mbokk yi amul benn société boo xamante ne tabaxu na ci loolu lu dul dëkk ba day ànd ak sécurité ak dal Sénégal mu ngi ci dëgg océan waaye kenn ku ci nekk na jàpp ne responsable la ngir stabilité gaal gi ba muy teer yàlla moo dogal ni son excellence mooy président de la république du Sénégal ba deux mille vingt neuf kooku ku mu neex ak ku mu naqari mooy li yàlla dogal ndax loolu ko saa salaam waxee ci xadis kon nañu yàlla yàlla te suuxat suñu gaal gi ci jàmm ak ci dal yàlla ñu yàlla defal suñu Sénégal gi mu nekk ci dal ñu nangu li yàlla dogal ci ñi ñu jiite tàmbalee ko ci fa nga nekk sa quartier dem ba la ko gën a yaatu ñëpp ñu nangu ni ku ci nekk fa nga nekk yàlla moo la fa teg qulillahumma maalikal mulk tu'til mulka man tasha bu demee ba war a jeex tanzi'ul mulka man tasha da koy da la koy teggi teg fa keneen kooku wéeree wéer liggéey kooku yàlla yàlla defal suñu Sénégal bi jàmm defal ñu jàmm ci suñu biir def ko suñu suñu njaboot yàlla sàmmal ñu suñu réew mi sàmmal ñu àdduna bi yëpp ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله